bàyyi xel rek ci ci mel noonu. lan li ci des nag mooy dégâts matériels bi nga xam ne xam na ci ak taas yi mi ngi ci biir léegi ñu ngi heureusement que am nañu ñëwaat am na benn matériel mi ngi ñëw Okétara am na benn machine mi ngi ñëw bu ñëwee ñu jéem a gindi génne yëkkati ko nag xool bagage yi ak nit ñi ak lan moo fi nekk euh, maa ngi wax naa maanaam woo Sonatel ñoom ñoo ci teg seen antenne donc ñu ñëw ban appel ngay lancer population bi ci yu mel nii. di leen wax rek là c' est un problème technique. ci bâtiment bâtiment dafa am ay ay normes yoo xam ne euh, da nga ay calcul. looy tabax da ngay calculer lii laay def donc bu ñu calculer poids bi laa la ferrage béton arme bi lii la ferrage bi lii la nga nga mën ko def mën a assurer.